bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi man la Mariétou macha allah fas yéene dellusiwaat tey fii ci saveur planétaire ni ñu ko fi baaxoo di defee rek. Euh, ba tey ci suñu euh, spécial tabaski bi ci lañ nekk ba léegi di ñaan yàlla ma ñun ñëpp ñu fekk ko te tal ko te yàlla yombal lépp diisal poche yeeg kalpe yeeg fépp rek. machallah ba ñepp mëna gis seen bop ci mbir mi daldi di euh, am euh, fête bu muccu ayib voilà mbokk yi comme niñ ko fi baxo di défé fan yi yëpp euh, gis ngeen alhamdullahi rabbil alamin yàlla ñuy euh ñi ngi gorlu euh akas neew yenn xétu bax bax yu yaabu yu sew yi ñi ngi def suñ kemtulaay kàttan ngir ñun ñepp ñu mën ci bëggal ci wa saveur planétaire yëpp fu ci way mëna nek voilà donc li wax ne tay nañu fas yéene indi ay salade salade yi non seulement que mën na nekk entrée mais aussi mën na nekk garniture man noonu laa ko tuddee moom it ci euh, famille passe-partout yi laa ko ba fas yéene boole incha allah voilà donc gis ngeen suñu yóbbu yaaba yaa ngi nii di tegee bu ñu njëkkee fii dañu gis ne que fii ñu ngi fi ak suñu pomme vert voilà pomme verte la moom mooy euh, Granny Smith bi Euh, mom dafa xawa forox ni ta neex ba pare deuguer ferme non la wéree xolliwuma ko donc di bayilo xel mbokk yi ne fi légume buñu fi gis wala fruit buñu fi gis buma ma xolliwul rek euh machallah xolli di war nañ ko mëna lek parce que euh, yoy yep ñom ñep ay bio lañu voilà bio yi la jël organique mo ci gën mais ku ci nekk rek na nga dem ak euh, li nga xamantene mom nga mëna jot ci fi nga nekk ak num fa munti tëddee voilà donc pomme verte bañ ni ki carotte la gis nga len ñom ñep ay lamel lañ len def gis nga len ni euh, yu guddou fi yenn supermarché di nga fi gis yo xam dañ la ko défaral bam téré bien da nga ñew raxas rek fas sa kanam ki ni ñu gis ni poivron rouge la euh, astafurlah poivron jaune gis ngeen ko ni momit euh, dañ ko may benn petit yatt yatt mu nuroo carotte bi bi poivron bu rouge bi la poivron orange la li ñu gis ni melon la voilà melon bi dañuy seet bu ferme bo xamantene da fay dëgër su ko defee momit ñu may ko ay dag dag poivron vert baa ngi nele léegi suñu yuubu yaaba yi ñoom ñi salaat bi kii lañ ci fas yéene ne réel moom it mboq mi mboq ngi ni voilà daal di leen boole ñoom ñëpp dégg nga maam ci suñu euh, supeeru salaat bi macha allah nga xam ne moom it euh, jaxase mélange de salade rek lay lijjanti <laughs> incha allah jaxase leen fa mélange leen fa ba ñuy xoole benn place beneen salaat bi ñu doxantu bënale j'espère que yëf yaa ngi ñëw comme il faut tey maa yor cabine technique bi de <laughs> macha allah. voilà donc beneen salaat bi dañu gis ne que dañu bëgg a defar potato salade potato salaat benn salaatu pomme de terre ak nen la boo xamante ne américains yi seen fii lañ ko dugal ci biir xol bi <laughs> ak ñoo ko gëm duñ la invité te tegaluñ la ko ci table bi <laughs> macha allah donc euh, suñu pomme de terre la ñu baxal ba pare potato bi dañ ko xol xolli ko ba mu set léegi ñuy seetne ci ginnaaw nen la voilà ay nen yu bari ñoom ngay boole rek écrasé ndoo leen may ko sa vinaigrette bu fatt tarek jël sa cornichon bale moom it tucc tuccal ko ci bu coow luy bëgg a bëri nga jël sa mayonnaise rek may mun a <laughs> may mun a nees di jégalu sama mbokk may mun a yi dégg nga maam boole leen ñoom ñëpp may leen benn petit jaxase mélangé daal di jàpp sa njàmbur voilà léegi gis ngeen suñu betterave bala di tege fële ne la moom tam ci ruq ba euh, dañu fas yéene moom it rek defar ko benn salaatu betterave bu gaaw rek voilà jël ko noonu rek ak suñu tuuti soble bu ñu piikal euh, daal di ko fasee suñu kanam <laughs> pour ñi nga xamante ne dañoo bëgg betterave voilà yi gis nii ndaw yi man tóor tóoru poivron laa koy woowee voilà ay baby bell peppers la donc euh, poivron yi yu xonq yi kii seen euh, du ma ne sax seen doom seen sëtaat laay wax pour man dama jàpp ne tóor tóor la euh, mayeguñ ko mu fer voilà juddu na ci ndeyam mais ferul moom it dañ ko piikal tuq sa bann bu saañ ba la moom benn bii rek nga jël rek matt bàyyi mu wàcc dafa xaw a saf suukar tuuti xaw a forox tuuti nga yëg doomu poivron yi noonu ci suuf ndànk di mbiccax mbiccax yi taxawaalu ci sa biir gémmiñ gi n'importe quoi co n'importe voilà léegi fii ni ñu ngi fekk suñu sel sel rose ku ci nekk sel boo am mën nga ko jëm it's the pink salt here we have uh, white pepper donc poobar bu weex bi lañu fi am lii honey miel la mu ngoog lem baa ngi noonu ci vinaigrette bi la jëm di bàyyil indi benn taxaw seetlu gis ngeen moutarde bi maa ko tey sottiwuma ko fu ndaw pour wala dama leen ko bëggoon ngeen gis ko bii nii Dijon bii ci boppam bii bii jógee kanadaa la <laughs> defoon nañ ko ci garlic plus bi waa Canada am problème nag <laughs> gisatuñ garlic plus fenn mais moutarde bi ko leen xam mu nekk Canada mbaa nga nekk Canada wër leen ko ba gis ko tuq sa ban bu saañ ba réer la waaye moutarde bi yéen neex yow ah saf ba yàgg ci sapp la def voilà donc kii suñu may mun a nees bee nekk nii bii mayonnaise bi dafa wér tamit pour ñi nga xamante ne que dañuy wax ay problème mu cholestérol ak ay diwlin bu bare kenn xamul di leen wax ne ki bañ nañ ko ba huile d' avocat lañ ko defaree ñëpp xam nañ fel ñeent yi nekk ci avocat moom it euh, toq sa bën bu saañ bëri la tey nekk ñu fi yëngali mayonnaise bii rek la ñuy jël rek nekk ci tuy voilà fii ñu ngi fi ak suñu balsamique vinaigre <laughs> moom it ci tuq sa bann yi la mooy vinaigre bu neex boobu moom lañu fas yéene defar euh, suñu benn vinaigrette bi balsamique bi boole kook suñu moutarde monté kook tuuti huile d'olive mu jóg rek euh, dégg nga maam daal di dëngalu fii ñu ngi fekk euh, ba tey moutarde la mais bi grain yi la voilà mi ngi ni mustard seed bi la grain yi moo nekk ni the whole grain macha allah ñu gajafal ko ci vinaigre ba mu euh, dégg nga maam dégg jàmm su ko defee moom tamit ci coow li la bokk ci suñu vinaigrette yi ñu ngi fi ak suñu huile d'olive gis ngeen ko ni olive oil ci vinaigrette bi la jëm incha allah fii ñu ngi fi ak suñu ay cornichon gis ngeen leen nii ñoom it euh, ñu jàpp forme ci ruq ba aywa fee betterave bi moo fa nekk donc daal euh, lii lañu fi dajale xaw naa xumb ci taabul bi waaye ñaari salade yi bokkul la moo tax ma ne nañu profiter rek daal di ko ci ne réel benn yoon rek mbir mi daal di féete boor aywa bismillah Euh, macha allah mbokk yi kon boog ma ngoog gis ngeen léegi dañuy njëkke ci suñu euh, vinaigrette li ñuy gis nii suñu moutarde Dijon bi la mooy bu canadien bi tuq sa ban la. Mhm. Dijon canadien du ay fo. li xale yi naan du ay foo fii ñu gis nii ñu ngi fi ak suñu euh, sel rose nañ ci cof tuuti rek ñu ngi fekk suñu poivre blanc nañ ci cof tuuti ku ci nekk nag poivre boo am rek nekku ci réel voilà léegi su ko defee gis nga njaxas mi ngay gis nii. dañu ñëw jël lem bi nekku ci tuy mi ngi war a tolloog euh, kudd bi ñuy lekkee bu mag ak euh, kuddu kafe bu ndaw comme nii ñaari kudd yi dëggal ñu may leen benn jaxase ñoom ñi très bien léegi nag ñu jël suñu vinaigre balsamique gis nga couleur bu marron bi mu koy ñëw jox si bu ñu fàtte ne vinaigre bi moom it dafa lëndëm très bien vinaigrette bu simple classique te neex la donc du soxla ay laaj ak ay ak yoy su ko defé nak ñu jël suñu diwlin monte ko waaw monte ko bàcc bàccal ko lii lañ koy xal di def ba mu am forme bu téré bi bien co macha allah voilà léegi suko defé nak wax ji du ci bari dañ nan yóot kudd bu ndaw dal ci am benn petit mos wa kudd ba lañ nan yóot ay bismillah téré bi bismillah wuyep lew ki neex na duma ci doli dara duma ci dolli xorom duma ci dolli poivre duma ci dolli gis ngeen li ngeen koy gis ni bu len ko xet angari tiafka la mo ci ne li ci ne ci tiafta ken mu la ko netali donc ben vinaigrette bi paré na moom xara ñoo tege ko ne mu fété bor ñu ñëw songu leneen cho way vinaigrette bi neex way eh, mbokk yi ma sha allah legi gis ngeen suñu yubu ya bañ lan leen wonoon gis nga fini dañu ñëkke ci crudité bi lañu ñëkke gis ngeen ko ni dañuy bolé suñu poivron vert poivron jaune poivron orange poivron rouge ak suñu melon bolé ko ak suñu carotte bolé ko ak suñu pomme gis nga len ni ñu bolé fini ci ndabli. jël maïs bi ñew ne ko ci tuy moy mboq waaw waaw ku mu neex nak li ñu def fi, bu daf ci am benn ci euh, ñamato si ne fi bu la neexul bu amé benn ci ñamato si bu la neexul bu ko ci def gis nga ñu fab ki ne ko ci tuy gis ngeen len ni gis ngeen sa lo gi gis nga buñu ko bàyyee ni rek ken yëngalu ko kenn defu ko dara ken defu ci dara dara bàyyi ko nii rek man nga ko def ci sa bol bo xamne da fay teju nga tej ko ne ko réel sa frigidaire tek ko rek le température frigidaire bi bala nga yew suba <laughs> fekk yi muju nek glace nak ben yon ñu faf jom ñun ñepp voilà mais bo xasse ba def ci vinaigrette bi commencé ko yëngal rek da ngay gis après ñom ñepp dañuy wiccaxu voilà wiccaxu bi mooy dañuy génne ndox ñoom ñu ci seen bopp donc loolu moo tax euh, man ne bu ñëwee ba fii naa bloqué def taxaw seetlu pour xamal gaañ ñi lii ñam la boo xam ne kum neex mën nga ko defar ñaari fan sax balaa bés bi nga koy soxla voilà bu la neexee mën nga ko defar ñaari fan balaa bés bi nga koy soxla mais bul yëngal bul jaxasee dara ni mu mel nii bàyyi ko nii rek tout tranquille te conseil bi ma ciy joxe mooy euh, pom bi comme pom dafay faral di ñuul bii nii dama ci laal citron pour mu bañ a ñuul bi ma ko daggee ba pare comme bi dafay faral di ñuul conseil bi ñu ci joxe mooy pomme bi mën nañ bàyyi ba à la dernière minute ku ko ci bëgg a def ne ko ci tuy voilà gis nga léegi suñu kii jaxasee mélangé gi ba mu jaxasoo moom la ñu ñëw rek may ko ci vinaigrette bi ay bismillah macha allah mbokk yi gis ngeen macha allah am nañ couleur bu rafet macha allah am nañ couleur bu rafet tabaarakallah léegi gis ngeen li ñuy def xoola dañuy doxantu ba fii ndànk rek may ko ni tuuti ci poivre bi ndànk rek mu judduwaale bu ñu fàtte ne vinaigrette bale ma ngay toqi toqi am na tous les bagages qu'il tous les bagages qu'il faut nga ci biir vinaigrette bële mooy suñu vinaigrette bu neex boobu rek eh très bien gis nga ni cam jël tuuti ci xorom si may ko moom it mu daal di ñu may benn pëtt judduwaale gis ngeen ko noonu su ko defee ñu ne ko nii tiital ko tuuti rek voilà benn pëtt bàcc bàccal mu jóge ci kaw di dem ci suuf mu jóge ci suuf di dem ci kaw baal leen ma voilà gis ngeen ko ni mbokk yi di wax na tey suñu salaat bi macha allah suñu yaay yi ci saveur planétaire yépp lañ ci fas yéene yekkal waaye dañ ciy jukki ñenn rek jël yekk bi teg ko seen loxo ñu jottali leen ko macha allah ku ci mel ni suñu yaay euh, Mariam Fall euh, fële ca Mbaaw euh, ñu ngi koy ñaan yaay booy yekk bi teg nañ ko ci sa loxo na nga ñu ci seddal suñu yaay càllal Diop fële ca Sonatel waa Sonatel yëpp bu fa kenn des bëgg naa sax ngeen yeggaale ci tutu ndaw ndey asu ndaw sama mag bu jigéen ñoo bokk benn baay macha allah sama mag ju baax ci man macha allah macha allah fas dem ba France Paris yekkal ci suñu yaay tamit sana sëy macha allah suñu yaay ju baax jooju di leen wax ne seen ñaan yi duñu tàggoog di wax amin mi ngi yegg si ba fii dañuy doxantu ba Espagne yekkal ci suñu yaay Faat Jóob macha allah suñu yaay ju yiw jooju moom it Eh, limi ñaan ma sha allah dañuy ñaan ba sama yaram fay daw yalla xam na ko dañuy ñaan ba sama yaram fay daw ma allahumma amin yalla yalla nangul lepp boole ko ñun ma sha allah voilà di wax ne kepp ko xamantene suñu yaay nga ta nek fi ci saveur planétaire rek jappal ne salatu tay bi sha allah yow lañ ko yakkal voilà ayo bismillah ay mbokk yi sha allah sha allah tabarakallah suñu salat sangini ngi ni pare na macha allah ji bu bëgg ji yañ ji yañ ji waaw yanj ba tere bi lu leer laa leen wax fi mu ne ni gis ngeen ni suñu vinaigrette bi mooy tuq sa ban bu saañ ba réer ba rek mi ngi ni ñu teg fii léegi di wax mbokk yi rek nii nga xamante nekk duñu ko lekk right away ci tàng tàng bi ñu bañ ci def vinaigrette bi pour bañ ya yi di génn ndox ni wala dara parce que yi da ngay bëgg comme yëpp ay légumes croquants la ay ay fruits gi kenn xamul dangay bëgg muy coxom coxome waa nga di ko dégg muy kojom voilà Euh, couleur yi laa xawoon na xeeb tuuti rek xam nga yëf yi nag nee nañ leen dañuy feetu il faut il faut yëf yi xumbuta ndagat rawatina suñu yaay yi lañ ko yekkal donc euh, gis ngeen fii nii ñu ngi fi ak suñu olive maa ko ci ne tuy gis ngeen fii nii dagguma fi soble parce que soble bu ñorul bi laa doon éviter ndax xam naa ne li ñu nara a soble yëpp macha allah kenn xamul nu mu toll moo tax gis nga ni oignon pearls yi laa ci def moom mooy oignon blanc yi euh, pickle bu neex boobu noonu yéen a ma ko gën a xam di wax rek ne que mbokk yi gis ngeen suñu yuubu yaabe yi nii sama mag jigéen waaw madame euh, Silla koddukan Kan mi ngi foofu noonu Sénégal ci yi lay yëngu xeetu baax baax yi lii ngeen gis nii recette am la donc di leen wax ne bu fekkente ne bëgg ngeen ñi te bëggu leen dara taq ci biir kër ga woo leen sama mag koddukan donc numéro am dafay nekk 77 200 après ngeen def 45 après an donc 77 200 200. après 45 après 31 du kan inshallah kuko wo loko commander ñom sos ne ko ci réel bi recettam la yenen bax bax yi mi def bu may tok fi diko fi wax tay duñ fi joggé bon duñu def rek luddul xol gis ngeen ni ki lañu ñew ni rek may ko ni petit ndios ndax xam ngeen ni ki man duma ko fi xaaral dara légui la ñew dal ci kawam très bien mbokk di len wax ni vidéo complète yaang ci youtube bi machallah donc euh, di wax nek di len fatali rek ngeen euh, dugg ci suñu euh, site yi ñu am tey abonné di partagé di ci dolli euh, bismilla li la ngeen indiloon tey fii ci saveur planétaire sama yaay yu baax yi ñoo moom lii mu ngoog ay war na res ak jàmm bismilla très bien euh, macha allah mbokk yi ñi ngi ñëw nag léegi ci suñu deuxième salade bi voilà muy euh, suñu potato salaat bi nga xam ne <laughs> américain yi ak ko ñoo ko bëgg donc li ñu gis ni cornichon la mooy piikal yi man sa mbos dama ko ciy def li ñu gis ni mayonnaise la mooy may mun a nees bi gis ngeen ko nii moom mooy euh, bi ma leen wan nga xamante ne que huile d'avocat la ñu ko mayonnaise mu wér lool macha allah wér lool macha allah voilà fii suñu euh, grande de moutarde yee fi nekk gis ngeen ko ne la léegi tuuti moutarde laa ci def parce que bëgguma woon defaraat beneen vinaigrette fee di defar fii di defar faa di defar fële muy euh, métti affaire voilà gis ngeen ni tuuti ci sel bi moom lañ ci naan tuy très bien bu ne mayonnaise bi tiital nañ ko ci xorom si. jël tuuti ci poivre blanc bi white pepper actually mën nañ ko ci ne tuy li ci ne yee du ci wàññi dara daal ni ko ci réel tere bien léegi su ko defee ñoom ñi moom laay ñëw may leen benn petit jaxase mélanger ba ñuy xoole benn place ñu daal di jël ndax gis ngeen suñ pomme de terre bi nii lañ koy def pomme de terre bi dañ koy jël écrasé ko ak fourchette coko coko je ne mu féete boor gis nga ak nen bu ñu baxal bu bari voilà ku mu neex mën nga ràppe sa karoot ne wàlle ko ci tuy mais ñun euh, nu mu gën a simple rek gën a woyof rek gën ñoo arrangé aywa bismillah ay su ko defee suñu wax du ci bari dañuy ne yóot suñu kudd ndànk rek daal ñëw ne ne yoot yuubu yaaba gis nga leen nii ku mu neex mën nga ci bañ a def grain de moutarde yi man maa ko ci bëgg sama biir xol voilà gis ngeen ko nii gis ngeen ko nii tere bii su ko defee dañuy ñëw ndànk jël nen bi ne ko ci réel waaw ku mu neex nga sànni ci céleri ñoom en général dañ ciy def céleri ci seen euh, potéro salaat bi mu cuq ba mel ni maar de yem si léegi la boole may ko jaxase mélangé ba muy xoole benn place. Eh, ay mango très bien gis ngeen ko moom dafa rekk yomb affaire kii man dama ko sopp lool ci ganaar gu ñu wàjj ci fourneau ganaar gu ñu lakk ak potéro salaat jar na 480 cent weccet moo wax leen ko tey inshallah bu tabaski bi passé ak jamm ak salam dinañ fexé défaral leen vidéo bu mel non gis ngeen ko ni ku mu neex nga gën ko écraser mu gëna puré wu mais man ni moma gënal gis nga ni may seen yub ya bay ak di ci xom di ci di ko daj ye ñu ñew nak dresser suñu assiette ay mbokk yi ma sha Allah ma sha Allah très bien ciop fi lañu gënné tay macha allah gis ngeen ni suñu potato salaat bi potato salade bi mooy euh, salaatu pomme de terre beeg nen bi gis ngeen ko ne lekk yóbbu ba dañu ñëw ndànk rekk <laughs> bu leen ma reetaan nag dama dem ba ci biir maa leen digoon <laughs> <laughs> maa leen diggoon salaatu betterave mais waxtu wi daf ma njett fi ma nekk ndax mi ngi guddi si euh, te incha allah suba am na ñu ñu war a taxawee euh, moo tax wala sama wax bëriwu ci ñëw naa daal may ko benn petit ràñsele wërale ko ndànk ci kaw salaat ba jël samay tomate ne ko ca tuy fase ko sama kanam xanaa wax ja jeex na ni ñuy gis nii ci kaw noonu muy cëpp cëpp fenee ci kaw kooku basilic la beesal maa ko ci sànni ndànk ya fi àndi gundus gundusay monté voilà donc di leen wax ne macha allah tey jii sama euh, potato salaat bi dama ci fas yéene yekkal sama doom bu jigéen maag papaam ñoo bokk ndey ak baay papaam di taaw suñu kër. waaw muy ndey Ma sha allah di len ñaan ngeen ñaanal ko papa ji neena ma ndey màgget dal dafa melni sa tank la top mané ko ah, mu ne ma togg rek lay def mané ko ma sha allah yalla nako yalla taxaw sam ko ak yaayam ju bax joju xadi càndum madam ndaw <laughs> mané ko euh, xaritu euh di ci yàkkal sama mag ji mom tamit ibrahim Seydou Ndaw taw grand di la wax na jëk a juddu jëk bax jëlal yekk bi rek doore ko li top ci yow ba wàcc ba suufa suuf joxal ma njabot gi yëpp sha allah mbir maa ngoogu gis ngeen ko nii kii tamit bokk na ci li nga xamante ne eh, ci kàttanu yàlla eh, ku ko am dégg nga maam ne ko teel teg ko ci sa taabul day dem de yuu lu bari bari ngay am macha allah macha allah. aywa très bien di wax ne li lañ leen indiloon ci saveur planétaire tey macha allah gis ngeen suñu vinaigrette bu neex toq sa bann boobu xool moom la ñu ñëw rek may ko ni benn petit wërale ay waay ku mu neex nag sax mën na la cee bañ a fekk waaye man moom xam ngeen ma de yëf yi moom <laughs> très bien foog man la yàlla nattoo maa mënul lekk ñamu naqari yan nañu yàlla taxaw mbokk yi di wax ne vidéo complète yaa ngi ci youtube bi incha allah ayo bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah bu leen fàttee abonné ci chaîne yi tey partagé ayo